ñu nuyu leen ci seen tur ci seen sant ci seeni cër ci seeni daraja di jiital ci nuyoo bi kilifa yu tedd yi fi teew Cerno Makki euh, Sëriñ Cheikh euh, Cerno Saïdou Dem Sëñ Bachir ak sama sëriñ Sidi Ahmed si ñoom ñëpp ma jël nuyoo bi gëna a tedd bi gën a rafet bi gën a kawe su ma ci mënoon a suy ay toqi gët yu ñu wattee ci tóortóor yi jóge aljanna ma wis ko ci teg ko ci seeni loxo yal na yàlla yokk seen fan seen teraanga te jiital ci kilifa yi ngeen toogal fii nous saluons toute l'Assemblée et remercions le directeur du livre et le ministre de la Culture, ainsi que la direction de, des éditions Al-Bouraq nous nous honorons de la présence de notre frère Wissam Mansour et de Pape Khalifa Nous les remercions pour avoir initié ces journées qui, de mon point de vue, représentent une première dans un agenda. Les manuscrits ne représentent pas seulement pour nous, nous l'avons déjà évoqué, ne représente pas seulement pour nous du matériau sur lequel il y a gravé les signes de nos ancêtres et pour lesquels nous devons apporter un sentiment de sacralité, même s'ils en ont. Mais les manuscrits sont des attestations. Ce sont des attestations de présence des attestations de présence dans le sens de l'action qui donne sens à l'existence et qui prescrit et inscrit une part d'histoire de nos ancêtres dans cette odyssée de l'humanité, odyssée dans laquelle ou pour laquelle des philosophes comme Hegel ont nié la part de l'Afrique. soxna Mariama maa ngi lay ziar bu baax a baax en tes noms et qualités mais également en ta qualité de représentant de notre professeur le bien-aimé et le bien regretté et nous disons astaghfirullah quand nous disons le bien regretté parce que ce que Dieu a fait nous devons l'agréer mais le bien regretté humainement et culturellement le professeur Iba Der Thiam qu'Allah renouvelle à chaque instant ses bénédictions sur son âme Seyda Mariama vous le savez le philosophe Hegel et ses héritiers ont nié la part d'histoire de l'Afrique dans cette odyssée de l'humanité et les manuscrits sont un démenti aujourd'hui ce n'est pas un jour encore. C'est un jour qui vaut mille ans. Vous l'avez appris dans le Coran. wa inna yawman inda rabbika ka alf ka alfi sana mimma ta'uddun pourquoi pourquoi ce jour représente mille ans la première école française au Sénégal date du 19e siècle du début du 19 siècle mille ans avant, l'islam avait déjà inscrit ici des universités, formé des élites, écrit des livres, formé des individus et préparé notre peuple à apporter sa part de contribution dans les sciences. Les manuscrits ne sont pas des manuscrits religieux. Docteur Jim Dramé est dans la salle. Je le salue. Les manuscrits ne sont pas des manuscrits religieux, vous le savez, parce que vous y travaillez. Les manuscrits sont les témoins de la contribution de l'Afrique à la science globale. On y trouve de l'histoire, de la géographie, des mathématiques, de l'astronomie, de l'anthropologie, de la poésie, de la littérature, des sciences religieuses. Mais on y trouve également des éléments de résistance culturelle, qu'au moment de la rencontre entre l'Afrique et l'Europe, il y a eu quelqu'un qui voulait que l'Afrique se dissolve dans l'Europe et nos ancêtres ont dit non, nous, nous acceptons la rencontre et l'échange, mais nous n'allons pas nous dissoudre dans l'Europe. Nous avons utilisé l'alphabet arabe pour créer toute une littérature en Ajami. Cette histoire-là n'est pas une histoire. cette histoire, c'est une transmission de valeurs. Une transmission de valeur pour nous dire qu'en un moment où il y avait une, une volonté de domination de l'Europe sur l'Afrique, nos ancêtres ont dit non. Au moment où les Arabes nous ont apporté la religion, les ancêtres ont dit, nous acceptons l'arabe en tant que médium. Nous sommes des musulmans. et nous répondons seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais du point de vue de notre culture, nous n'allons pas dissoudre notre culture dans la culture arabe. Et ces manuscrits sont des témoins de cela. Nous n'avons pas dissous notre culture dans la culture française. Et les manuscrits sont des témoins de cela. Aujourd'hui, ces manuscrits sont une transmission pour nous dire si nous voulons éviter d'être fa xalafa min baadihim xalfun adaau sola wa tabaau shahawa si nous voulons éviter d'être des négligents par rapport à ce legs nous devons donner sens à ces manuscrits permettre aux générations futures de comprendre qui sont-ils quel est le rapport avec l'autre est-ce que c'est un rapport de soumission ou est-ce que c'est un rapport d'échange et nos ancêtres ont accepté le rapport d'échange et ont évité le rapport de soumission. Vous avez raison. Il y a ici un péril. Vous avez écrit des manuscrits en péril, mais non! Ce sont nos mémoires qui sont en péril. Et quand nos mémoires sont en péril, nous ne savons plus qui nous sommes. Et quand nous ne savons plus qui nous sommes, nous ne connaissons plus Dieu. S'oublier, c'est oublier Dieu. Nasullah, nasu anfusahum. Si nous oublions qui nous sommes, nous ne pourrons plus jamais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous montrent que nous devons savoir qui nous sommes sur cette terre, avec les autres, pour créer les espaces de rencontre et d'échange et avoir la dynamique de l'élan vers Allah subhanahu wa c'est la culture qui le fait. Vous avez raison, li taarafu dans cette pluralité de shu'ub et de qabaïl dans cette pluralité de réponses aux questions de la nature il y a cet échange pour se connaître les uns et les autres et dans cet échange pour se connaître les uns et les autres il y a la reconnaissance de l'autre mais il faut d'abord se reconnaître soi-même et c'est ce que les manuscrits nous dictent nous rappellent nous inspirent nous interpellent mbokk yu tedd yi du ñu nekk di fàttaliku fàttaliku guy niroog barkeelu ah kay barkeelu baax na mais barkeelu bi gën moom mooy nga indi barke ci li ngay barkeelu lan mooy barke mooy lu yokku su fekkee indiwuñu barke ci li nuy barkeelu kon ñun wor nañu ñi indi li ñuy barkeeloo une valeur ajoutée ajouter quelque chose à cela moo war a tax tey manuscrits yi nekk loo xam ne duñu ko barkeeloo mais dañu koy yokkee li fi mag ñi bàyyi naka lañ koy yokkee sàmm ko ci la bokk xam ko ci la bokk waaye xamle ko ndaxte am nañu suñu benn sëriñ yal na yàlla yokk leer ci moom Cheikh El Hadj Mansour radiyallahu taala anhu wa nafaana bi barakatihi mu ne lu kenn xamul ak lu amul ñoo yem lii Seyd jatara wax léegi mbir yi bu ñu demee ba mu sànku ba yàqu ñu nekk di ko nettali te mënuñu am lu ñu ko wanee lu ñu lu ko seede loola daanaka amul parce que xamatuñu anamu te lu lu lu kenn xamul ak lu amul ñooyam mag ñi nag fexe nañu ba 1444 la benn tubaab bu ñuy wax du ma wax santam parce que dafa am sant bu muy nirool kon dafa nekk contexte bu garaaw 1444 15e siècle ci la tubaab yi njëkk a ñëw fii ci Afrique di fi wut si ay jaam Ibrahima 1200 au 13e fekk na booba Askia yi taxawal nañu ay université euh, Ahmed Baba Tombouctou ak piir gii ñu doon tudd léegi fekk na booba mag ñi taxawal nañu ay université jàngal nit ñi tabax ay école bind ay téere pas copier ay téere mais yokk ci li ñu fi fekk waaw loolu école bu njëkk bu tubaab créé fii mi ngi jóge mi ngi am début dix-neuvième siècle ca Ndar junniy at mag ñi jàngal nañ ñu ko te réere wuñu suñu bopp parce que ñi mag ñiy jàngal doo ci wax kenn ni ko kaay waxal ma ci wolof mu ne la déggatuma olof ndax léegi arab rek laa mën a làkk waaye ñun ñi nga xam ne tubaab yee ñu yar nag yenn saa yi ñu ne ñu kaay wax nga ne ah non si je peux pas parce que c'est en wolof et moi mon wolof la <laughs> loolu mag ñi jàngale nañ fii junniy at nit ñi réerewuñu seen bopp yokk seen xam-xam ñu yokk xam-xamu l'islam boole ci yokk seen xam-xamu bopp ci làkk yi nga xam ne moom lañ doon làkkee kon manuscrit yi nekkul lu nuy barkeeloo mais dafa nekk loo xam daf ñuy seedeel mag ñi bi ñu fi nekkee ak ñi ñu fi nekkaloon ñu jéem leen a dominer jéem leen a moom naka lañ fi nekk woon ak ñoom est-ce que dañu nangu woon sëgg ñu war leen walla est-ce que dañu lànk ni dañuy wane ñoom it seen wàll ci histoire bi nga xam ne moom la nit war a retracer ci kaw suuf parce que looloo tax yàlla wàcce ko moom nit ku ñuul kookule lan moo ciy doon wàllam ñu wane ko def ko ci manuscrit yi dem bàyyi ñoog moom bu fekkee dañuy jël mbind moomu nag di ko barkeeloo kese bu boobaa dafa fekk dégguñu lan moo taxoon mag ñi bind ko kon mbokk yu tedd yi le gouvernement def na pas bu rafet vision wu président de la république Wissam wax na ko sànq le programme Sénégal émergent c'est pas un programme de monsieur Macky Sall c'est un programme Sénégal émergent man Sénégal yow Sénégal kii Sénégal Sénégal émergent boobu am na benn ponk bu ñuy tuddee capital humain capital humain nag mi ngi njëkk li ci njëkk moom mooy wàllu culture nga xam yaay kan donc lii paa bu am solo la boo xam ne def nañ ko mais des na ñun suñu paawu bopp jàngalekat yi nekk université Moxtaala docteur Jim lan moo ñu tere jël étudiants yi sawarloo leen ci ñu jël mbind yi valoriser ko mbind moo ci jël maa ngi wax sama doomu ndey Xaadim si la bërki démb ma ni ko man dama jaaxle croisement bi may gis ci diggante Cheikh El Hadji ak Cheikh El ci ni ñuy taggee yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam mais mbind moo ci jël sociologie mi ngi ci histoire mi ngi ci gouvernance mi ngi ci xool leen jamono ji ñuy ñuy dund nii jamono ji lan mooy lan moo gën a fés ci sunu jamono mooy jàmbat ak désœuvrement waa zaru shikaayata yaa qawmi bilaa amalin loolu génnewuñu ci jàmbat yi te dem liggéeyi soo mbind moo ci jël rek sociologie mi ngi ci développement mi ngi ci gouvernance mi ngi ci même gestion de conflit mi ngi ci Thierno Maki Cheikh El Hadj Omarul Fuutiyu radiallahu taala anhu wa nafaana bi barakatihi bind na benn téere tanbihul gaafilina an qubhi ixtilaafi almuminin mais ñu nekk fi ñoom soxna Mariama ñu ngi rey seen bopp ci ay séminaire prévention conflit euh, mi ngi fii mi ngi fii mbokk yi maa ngi bëgg a guddal mais le plaidoyer c'est quoi nit da ngay njëkk a fonk sa bopp xam sa bopp soo fonkee sa bopp xam sa bopp la nga am nga mën ko échanger ak keneen la mu am waaye nun duñu arab nun duñu tubaab nit ñu ñuul lañu ñu bari ci ñun jullit lañu ñeneen ñi katolik lañu waaye nit ñu ñuul ñoo ñu nekk nekk ci ay jullit dale ko ca douzième siècle onzième siècle ba nëga ñi dundoon jamono yooyu du ñu daje ak benn boroom xam-xam sëgg kon nag c'est à ñu yëkkati raaya bi ñun tamit ba loolu ñu ñu bàyyeel mu bañ a nekk ndono barkeelu mais mu nekk ndono bu ñuy barkeel ñun allahuma salli wa sallim ala alxabibi almustafa